On a la dafa boole gommage ak lèvre rose maa la ko wax ci trois jours donc say tuñ daa di rose ba nga mel ni américaine les décor ma ay de cosmétique yaa ngook dafa baax ba noppi amul benn effet secondaire jigéen ñi jaxle jeex na fi daal woo ñu ci 77 820 40 40 wala ngeen woo ci 77 811 40 40 plus possibilité de livraison à domicile partout au Sénégal et dans le monde

Khalil soit droit au but attaquons le dialogue Dans la séquence day am début am fin fekk nga caméraman bu faire ba Sodax. Sodax n'a boobu day fekk une règle de tiers. Khalil gis nga Il day am gongo wala am gang? wala ñu def ko tëdd tëggu nënd ak semmi neex benn naqari benn te nag yow xalil su ma dégloo bu baax dafa mel wax ci man maa ko moom xalil yow osé nga léegi def fuy de ah d'accord léegi da ngay jaay am fit Ousseyn moo la sol fit wala sa as liggéey bi nga tax bi nga am moo tax sa sagaru liggéey bi nga am di fayeeku ñeenti téeméer changer sa ñaari pantalon sa ñaari chemise sa la costo ak sa as souvenement nga ne ma maman ma yeb wala ma faté bu facture courant bi ñe nga participer ci 3000 francs yo xale nga foog ne yaa tegal golo gi nga man dag ma yeb man maman. o moins lolu ma ngi koy def ci biir kër gi gis nga kër gi nga nekkon di toja ka tabax lolu la la dul mayeti est-ce que ya ngi dégg. Khalil merde. boko ko essayé tey ma dëgg sa. i eh merde la wax. ah Khalil da ngay tester sa galay xaw ma gàllaaj xaw ma dara gis nga maman ba ma yorulee dara laa la daan may nga toog sama digg bopp bi di fo léegi ma mënal la yor la dootuma nangooti loolu est-ce que yaa ngi dégg. bàyyi ma eh, waaw laa bëgg dégg dégg bu baax li ma la wax maman eh. xale yaa may gaañ. wax ak man eh, waaw laa bëgg dégg maman bu baax li ma la la ma la mayoon jeex na tàkk. لكن نجا خمني من ما يسكيلي un yom, waaye yow ah waay yaa sañse nag waa gis yow ya la de waa tiitaru gi nag pour la la sa poset ah yow ya la woon yii iya yow ya la ak marque bi nag waa kase koog lam bi waaw yaa ko joxoon waaw sa xarita nga bàyyee guddi ba léegi se ko bàyyi du bàyyi bu lekkee ba day bajjantiku di reewantoo ka dérange ñëpp daal na nag biir bu feesee faaw borom am nu mu def moo tax fan yi day régime comme laa koy jox pomme vert. <laughs> day résine jaadul de te koy de war nañoo résine. ñu mu tolloog borom. pourtant amul yaram bi. kaan ci Sénégal di boo mu ci génnee comme jiisu pata dem na xam naa maay waaj a jël relève ah. boo mu ci génnee pata jeex. yow yow yow yow sa sa régime fi muy dem ak fi nga kii bokku hmm. hmm, sa régime daal fi muy demee. yaa may tooñ nag de. ba tey de gis ma ni ñu soriyaantoo. ay la Sambay sama mag. siree nga Cees matee nga aaneen. Ah, yaa koy tooñ waaw waaw surprise bi ma defal nii nag mbay jama kumba seen laa la war a tagg wala tey fan laa la war a ci koo ma tagg baax na waaye badara daa la ma gën badara daa bëgg lu yomb demul ajam lu dul ay fukki ajam ak benn danga koo xeeb ñuy tiitoon waaw man ay vingt et dem badara ba na yow daanaka juróomam na ah waaw parce que naxu leen nax kooku ne ko man damaa dem màkka demati màkka demati màkka demati màkka mbay ma sa jëma ko mba waaye man nag v fay laa nopp nag sama maam jamay jooy noppee am nga ci droit moom laa nopp de ñoom ñëpp sama bàyyi la waaw waaw waaye ba tey man V5 fay laa nopp eh, bàyyi rek ma dagg la ci sama maam xaar waaw mbay ma jaaga Fatim Ngoone daaw Ngoone xëy talaam àll bi ci gaawaan. waaw bëri ngay maam nag. waa ñoom lan ah. lañ bëggoon noonu bokk fii bokk fi ñoom mënuñu woon a boole tagg yi. dañ ciy benn tagg. dañ ciy noobal. fu ñu dem fu ne wane fa seen bopp. ah ci bu lay neex. waa léegi loo ci tiitar waale nag Anna Mbaye. doon doon bazal doo fecc ci kanam gi tuuti. doon xam nga bi may ñëw xam naa ni ma toogee woon ngelaw li taxi. oui ngelaw li et eh, dina ma suwaa ngelaw li waaw oui ma. waaw barki Rasulullah sama yaay mi ngi mel ni man dix ans laa gëj kër. ah. diggante démb ak tey. waa Nas Touba. Asuba nga fa. ana Aya. ñu ngi fa ñoom ñëpp. ana papa bii baa. ñu ngi fa mi jàmm. di neex. <laughs> billaay tey la waa gën a aay. namoon nala nak nag. billaay maa raw defal la bu ni talaatay ndeer. suukar si dama koo wàññi nag. gisoo sama yaay tey lan la. du dara. santiruma <laughs> sa kanam. installé ngeen ba pare. waaw ñoo ci jàmm. Ah. installé nañ ba pare néeg yi installé ngeen nii ba pare. voilà ci yenn ah. yëre yeeg yooyu. waaye yaatu na rek. waa kër gi na. allah am ngeen aussi am na salle de bain sax na ci ah. Mhm. ci kaw ak ngeen jël. Wow, wow, ci kaw ak Wow, suuf jàmbaar ngeen nag waaw macha allah wow, man jeeg sama rakk wow, dañoo am jom Wow, wow dañu am jom kay mbay wow, Wow, laaj la dara waaw yow lan moo tax nga yabaate yow lu tax xamoo sa bopp lu tax nga bon yanu bon wow, bon ànd ak moom di jël wow, di wéy xale bi yow ban problème nga am ana mbay da nga sérieuse nii de man maay sérieuse wow, yow man wow, sukk jur la man maay sérieuse yow man di wax sama wat lan moo xew. yow laay laaj lan moo xew ba tax nga ànd ak say càmmiñ roñ roñu dem na fi ma yow tax nga bon te yëg sa bopp yow sa bàyyi sa morom. sama yaay nag mënuma laa comprendre. jëme fan franchement. sam papa génne ma jour boobu yaa dox suñu diggante yaa taxaw sama buntu néeg hmm. sinon kon mu si ci man dóoru ne naa génn këram ndax man ma door jabaram suma ma lan lay def génn mbay gi nga sant mu sant ko mbay gogo la sant man génnewu ma sama bop de suma papa mo génn la laa ci man sama frère taxaw ah. affronter ko wax ak mom ne ñoom dañuy génn and ak sen sœur duñ ko mom donc muy lan la ci def lan nga ci def yaw ba may dox sa digganteeg sa papa di taxaw sa buntu néeg di arsale sa papa ak lu mën a xew jàmm ak lu mën di ay jàmm yow da war a xam ne sa baay la yow. moom nga jógeeg moom foofu mu duggaat sama biir. yow kum takk sa yónnee xalal toog sax sa xolu la sa baay la moo la jur. ana neex nga nag. nga am ñàkk na nag di roñu jël sam papa dugg sama biir néeg fekk ma fa. ne ma kër gi bu dee mbay nga sant ci sama boño gi nga jógee génnal sama kër sam papa def lu ñaaw lu àddunay waxtaane fan yi dégg naa tës ak xalaas di ci wax de mm. xam naa nag déggoo leen ko xanaa yaa ko fa yóbbu man ñas eh eh eh, eh yaa may tooñ de yaa ngi ndax am nga fit yow mi am fitu toog jël ànd ak say càmmiñ daan di daan ne ba xër ñit dem luy ji yow mi laa war a wax jël say meuble indaale teg léegi déglu ma wax la lan la lan la lan la lan la gars yi di yóbbu mbaacoo di jaxjaxee jëkkër ji nee nañ goro ba nga xam ni topp jabar gi topp goro ba daa ñëw mu takk ko ñetteel koo xam ne moroomu doomam la sa jëkkër moo ko fi def Moussa mbay àddina waxtaane waa léegi lu ci seen yoon waa ñoom la lu ci seen yoon mais man li ma war a kaas moom laa kaas mayaatu sëy fi 9 ans doomu baayam ñëw seet si ko sam papa di doxaananteeg moom ci biir kër gi ma di ko dégg ne amul ñu ne déet ni waaye mu takk ka may wax ak kooku mu jaay ma reewante ma mbéj ka sam papa génne ma ndax jabaram man nga ni bu ma génn këram damay génn këram ba mu neex mbay gi nga sant mu sant mbay noonu laa sante mbay Maulana Cheikh al Islam di sama maam man dreetu Bawal ak Saaluma ma sonal de ku ma génne sa kër ma génn ndegam yow mi yow mii suñu doom la direct Bawol ak Saalum sonal ma saa ñun ñi la jur bëccëgu dara kàmm yow sa bàyyi kum takk sa yoon néew ci xam nga loo war a def def ko ne ñun boo ko ta def ne ñu nga ma yow tey ji ba sañ ngaa taxaw jàkkaarloo man ma mbéj maa ngay mbéj asuba am nga woowu fit ñi ma jur daa bokk ak sama morom yow kooku lépp lépp ko takk mais maa ko mag sa bàyyi ko takk boo mag ko bay përiyee ci kawam sa bàyyi ko takk danga ko war a jox cër yow na fi mbay lu tax nga fuuy ta bew te yëg sa bopp yow laa bëgg a xam billahi bu yaakaaree lan moo tax nga amu fit. bu yaakaaree ma wooyee ko tànta lan ma wax ba tax ma mbéj ko bis ni ki tey dee ma wooyee tànta. xam nga lu ma Maria dafa réew. yow yow bu réewee benn réew nga ko fukk ndax bu dara ngaa sa baay mi ko takk. te xam nga lan laa lay xamal yow de yow xoolal jalousie nii ay yooyu dalu la ne xoolal dara dalu ma sa yoon nekku ci lu ah, may dara mu la yow lu ma dal lu nekk yow doo ko xam ndax xale nga mat na ne diis diis yi yow sa yoon newu ci lu mas ak lu mat ak lu matut <laughs> sa yoon nekku ci xale nga te lu ma bëgg nga jug nag ñu wax ma kañ la ñu dem nga tuubal sa baay kan ah yow na fi mbay mii lan laa def sama papa ba di ko tuubal xamoo loo def sa papa ok sa yoon newu ci gis nga na fi mbay dama ne nga dem tuubali sa baay boo ko defut bi day lax dana la lakk bëccëg bàyyi du moroom de te barke baa nga ca moom naa torox ba dee jaral na la ko naa torox ba dee billaaxi jom nday dara jay baay te nag gis nga judd bu rëy nday ak baay fulla fay fayda borom yaa ngi waaj ñàkk fay nag yaa ngi waaj a ñàkk fayda sama yaay wax nga ma ne la tontuma sa bopp ndax sa manque gi yaa ngi koy bëgg a jëmale ci sa baay nee nga judd bu ree ndey ak baay fulla ak fayda borom fulla ja doo ko jëmale ci baay fulla gi ma mooy fulla gi ma am mooy lim nee lépp loo xam ne rek mbay la santoon ah. te ma jënd ka man ah. naa ko këram sinon dina ko taal sinon dina ko taal moom laa indi fii moom nga indi fii nii yow maanaam jël sa meuble yoo jëndaloon sa baay moom nga indi fii di ko ndamoo bëggatu ko duma ko bàyyi mu dem ci oto mbalit wala ñu koy taal beneen bi mooy li ko guddal li ko gàttal Anna Mbaye man defuma suma papa dara bay dem di ko tuubal jotewu maa moom dara ka mu ah. mel jotewuñ dara xam nga lu ma bëgg jotewu sa papa dara defoo lenn loo xamante ni war nga ko mën a dem di ko tuubali léegi xam nga lu ma bëgg nag mbay ma mbay mu sa jamakumba seen dañ bokk ko man ak yow nga bokk ko saa Mbay mi tamit mi nga dagge ci géñoom nga wuti jëneen nday yoo xam ne dalay boot di la roggante di la tam-tamal lii laa wax toll na la foofu. rombal na ma ko rombal na ma ko ndegam yow mi xale yaa ko man yor sa ñàkk kersa gu ma sëkk durum loo ko bu jëmale ko fenn si ko ci man ndegam yaa ko man ma saa man nii. sama yaay joteewu yow dara ah ah yàq sama der joteewu ma yow dara sam papa nga ma dem tuubal ko ma ne la defuma ko dara. man sa ndey war naa la wax nga yedd nga ngay teggi sama wax di ko teg fële na fi may yow yaay kan. gis nga mayaatu mii tax ngay répp réppee ko fër fëri bis boo fi feebaree doo gis ma mayaatu boo deewee doo gis mayaatu ah yomb ne yow jaaxal nga ma yow fan yii yëpp yow de bàyyi nga ko sama audio bi déglu naa ko de. mais dafa damaa jàppoon moo tax jàppoon moo tax. lu xew ba jàmm la. lu xew yi tamit yow teg sa téléphone bi tuuti ngir yàlla nga déconnecté man fay toj yëpp mënuma la koo wax de yaa ana nga ca kaw hmm. maam mu ñëw ci Nafi Mbay fekk ko néegam mu fëgg ko Nafi Mbay ubbi lu ne da ko koo yàq. moom daal xam nga lu koy bëgg a rey. waaw yi Nafi Mbaye dem jëli ji ci ci ci ci Xaddafi. bagage yan. bagage am yi nekkoon ci appartement ba. du moom la indi fii. waaw léegi nag yaa na naan ko dinga nga torox doo am barke boo dee safara nga jëm sa morom yëpp dinañ tàq te moom bu ñaanalee loolu Nafi ñun lu ko ñaana ndax Nafi bu yàqoo ñu yàqu ndax ñun moom moo ñu la la la ci waxee wax ko loolu waaye bagage yi jëlee ci Xaddafi bagage yi Xaddafi. waaw ci sa goro merci. bagage yooyu kay wax dëgg fa neex yàlla ana may nag mag la nag waaye tey moom juum na. ci juum la dëkk de. ah juum na de moom tey moom xaw ma ci juum la dëkk xaw ma waaye tey juum na ndax nag bagage yee sama bët bi ak sama nopp bi moo ma may. paa bi moo ne na fi mbay bagage bu mu fa bàyyi bu soobee yàlla bu doon lu mu jëndoon ci xaalisam la bu ko fa bawee moom lépp lay boole taal ko. li ma mën a waat ci yàlla mooy soo woppee ñun ngay gis bala ngaa gis ma yaatu man ngay gis maa ngi gis sa baay. mayaatoo la gënal ñun ñi anaf nag ana mbay yow mi ma daan wax jàppal mayaatu téyal mayaatu bu leen dara tàqale yow yaay wax li tey mayaatu mayaatu la la def ci problème bi dangaa bokk ak mayaatu lay sam papa teg ko naqaru xol ànd ak doomu baayam sam papa takk doomu baayam lan moo gën a ñaaw loolu yow boo yërëmatul mayaatu di ko ci dolli leneen mayaatu lan la la def sa def mayaatu waaye léegi yërëm ci mayaatu léegi man xas ma nga bàyyi mayaatu man xas ma nga bàyyi mayaatu leen daal la lay wax dem ca sa baay jéggalu sukkuraam mu baal la lii laa wax. loolu de def ko rek doon portaari do ko kon danañ la daaj kon dinañ la daaj def ci rido firi ko def ci rido firi ko kon te xale bi xam nga la nga xam ne lu ma sa moroom man soo bëggee morom damaa bëgg nga wuti ko. damay kaf ak yow rek. déedéet kaf kafuma ndax ci sa baay la ñuy wax. bàyyi sa mer gi ah bi nag Anzo toogal ñu waxtaan nga bàyyi waxu Moussa Mbaye ba Moussa Mbaye te Moussa Mbaye jur la nga ne léegi. waaw yow nañu waxtaan suñu yëf bii seen série yi ñuy teg temps yi neex na ndax doo ci jàpp di ci seetaan hmm? xanaa maam alaaj ceeno daraame fa fa nga ñaari yëre yi. waaw gàmmu maa jigéen combaan nga. waaw fa naa dem ñaan ko